voilà toujours revenir sur effectivement euh, aussi ba léegi tamit ci mbir moomu la mais Thiendella Fall comme que yéen ñaar euh, amoon ngeen benn lëkkaloo boobu wala collaboré woon ci ngeen ci dara. Mm-hmm. est-ce que maanaam décision bi nga xam ne jël na ko bett na la ba nga déggee ñu ne Thiendella Fall moo def li ni mel vu que ne yéen ñaar am ngeen benn collaboration boo xam ne mu yàgg wala mu gàtt aussi. waaw waaw bon c'est-à-dire que euh, bon munu wax bett na ma wala bettu ma mais xam nga euh, administration. Euh, c'est l'obéissance hiérarchique waaw mhm. fois vraiment euh, pas nag absolu parce que ku nekk aussi may na la marge de manœuvre boo xam ne buñ la def loo xam ne yow wóor na ne lii euh, waroo ko def mhm. mais euh, surtout boo amee yeneen niveau de responsabilité war nga mun a bañ bon xëy na loolu ci fekk ñu affecté la bu booba tam nga nga assumé ko wala nga démissionné ne mhm. li ngeen may def la mënu ma ko def mais chacun euh, ku nekk nag vraiment yow yaa xam li la sa conscience dictée pour nga nga def ko donc mun ma ci wax jugement de valeur daal. Mhm. Mhm. voilà mais président Macky ndiki ba muy renoncer à sa troisième candidature wala ba mu naan du ma def euh, troisième candidature bien vrai que ne euh, loi bi may ko ko dafa waxoon que ne bépp décision boo xam ne ab magistra jël nañ ko dinañ ko appliquer tey ab magistra jël. président Macky Sall àddoogu ci euh, jëm ci loolu li euh, looy tamit ak kàddu yi nga xam ne waxoon na que ne bépp magistrat boo xam ne jël na ab décision dañ koy respecté la lettre euh, te li mel aussi saba si fay décision am respecté wuñ ko. non c'est-à-dire nax suñu bopp nag quoi. parce que président Macky Sall ñi ñi xam nañ ko bu baax a baax. Mhm. xaw keneen man xam naa ko bu baax a baax a baax. parce que yàgg naa ko étudier quoi donc bi muy wax loolu. Mhm. waxul woon yeneen yeneen décision yi de bi muy wax loolu xelam lépp mu ngi woon si Ousmane Sonko. ok waaw nekkul woon ci décision yi day tribunal di jël fii à gauche Kaolack. Mm. Ziguinchor déedéet du woon loolu. Mm. lim bi mu doon wax yooyu dafa doon woon ñi que effectivement man bokkuma waaye décision boo xam ne juge jël na ko mu concerné Ousmane Sonko dañ koy appliqué. te di woon ni que Ousmane Sonko citoyen la comme tout le monde donc il doit s'assujettir effectivement aux décisions de la justice kooku bu ñu la xamante bopp quoi il ne pensait pas au loolu yëpp xelam mu woon ci Ousmane Sonko. Euh, bu décision bi défavorable. waaw dañ koy appliquer bu favorable aussi dañ ko war a ah, appliquer. Euh, absolu absolument <laughs> absolument absolument mais c'est que ñoom ñu ngi si logique boo xam ne Sénégal boo xoolee depuis affaire Adji Sarr bi ba léegi. Mhm. dara dafa jaaroo ci yoon. daal defar jaarul si yoon cest à que euh, dossier Ousmane Sonko évidemment ñi ñi booy wax Ousmane Sonko. ñu mm. commencé ne waaye yaa ngi koy défendre. donc <laughs> <laughs> Pastef et cetera mais affaire bi moom la daal bu daaloon keneen aussi xëy na dañ koy wax. te dëgg moom yàllaa ko moom. Mm-hmm. waaw nit ki nag booy wax ngir yàlla rek bu ci bu ci bu ci ragal a wéet daal. Mm-hmm. donc depuis le début affaire Adji Sarr bi laa wax ni depuis boobu ba fi mu mujjantil gi dara jaarul ci yoon. Mm-hmm. boo seetee brigade gendarmerie ba bàyyi ñu gendarme yi def ñu def enquête ñun ñu yàgg def enquête xam nañu doon nañu jàpp commanditaire yi. ñi nga xam ne ñoo sookee loolu. te am na loo xam ne aussi objectivement dama koy wax. Mhm. mooy mbir mi bu amee du état moo jóg ne dafay def complot. Mm. ay nit ñoo jóg ne dañuy def complot ci léegi pour ne ah. yaa notre adversaire la dugg na ci mbir nañ ci profité léegi. Mm. moo tax ñu dugal ci seen loxo et cetera quoi. bon bi mu demee ci procureur aussi c'est pareil. deful li mu war a def. ñu dem si juge d'instruction bi aussi vraiment aussi deful lu mu war a def parce que am na acte yu bëri yoo xam ne war na ko posé. n'est-ce pas bañ dem ba procès bi. waaye si procès bi aussi am na loo xam ne xëy na dinaa ko wax. xëy na du neex euh, ñeneen ñi nga xam ne ay farando Ousmane Sonko lañu. Mm. mais man dama bokkoon ci ñi nga xam ni. Mm. vraiment dama ne woon dafa waroon dem procès ba. parce que gisuma voilà man gisuma woon lu war a tax du dem na dem. parce que d' abord mu ngi amoon ay avocats yoo xam ne c' est des avocats de qualité. Mm-hmm. waaw ñooñu taxawoon di ko taxaw amul kenn koo xam ne yaa leen gën a ay Sénégal amul kenn koo xam ne yaa leen gën a maîtriser. te keroog bu ñu demoon ci ci ci procès bi Adji Sarr dañ koy écraser. Mm-hmm. dañ koy écraser mais justement seen ñàkk a teew si procès bi moo tax ñoom ñu am porox ndox. indi affaire euh, corruption à la jeunesse. parce que bi ko procureur waxee bon amul kenn ku fa nekk di leen weddi. donc le procureur avait le champ libre le juge aussi di àtte aussi gisul kenn koo xam ne dina ñëw di ko contester. Mm. Euh, effectivement euh, la nature ayant horreur du vide. loolu moo tax loolu prospérer mais wóor na ma ne ñooñu bu ñu teewoon foofu affaire accusation nu mu tuddee corruption à la jeunesse parce que c' très léger. ok voilà comme ni ko su ma bu baax a baax Ousmane euh, ak avocat mm. Mm. bi bokk moom mooy bii de procès bi tantôt yaa koy wax depuis 2021. ba 2023 Ousmane Sonko. Euh, procès sur procès Ousmane Sonko état Ousmane Sonko régime bi fi nekk Ousmane Sonko ak euh, maanaam euh, membre régime actuel bi lan nga jàpp ne moo waral Ousmane Sonko à chaque fois ñu koy tudd ci yenn yi ak membre wala état. waaw lenn rek c'est que danoo bañ mu nekk candidat. c'est vrai que kooku c'est le postulat de base. président Macky Sall jàpp na ne rek Ousmane Sonko bi warul nekk candidat parce que bu nekk candidat il va me battre loolu rek li ngay gis lii yëpp yëpp yëpp yëpp loolu rek la. Mm. que Ousmane Sonko moom warul nekk candidat parce que bu nekkee candidat rek dem may donc moo tax ñu koy jaarale fu nekk euh, justice comme ni ma ko waxee. dara ci li ñuy yëkkati ci wàllu justice vraiment euh, nu mu tuddati euh, jaarul yoon quoi. Mm. bon Ousmane Sonko effectivement dès loo xam ne comme j'ai dit indi na discours bu bees mais discours am beesul. Hmm. discours am bees na par rapport au jeunes. parce que jeunes yi nekk nañ fi si Abdoulaye Wade nekk nañ fi si Macky Sall. mais ñu gis réew mi nu ñu ko cax caxatee nii nit ñi di sàcc alal bi euh, euh, naar fekk bi bëri euh, vraiment vraiment c' était du n' importe quoi ba léegi nii c' est du n' importe quoi. Hmm. donc gisuñu koo xam ne doon leen wax loo xam ne fekk ñoom na xale yi yeewu nañu. Mm. waaye gisuñu koo xam ne xëy na mun na leen gunge si seen yee boobu quoi donc léegi Ousmane Sonko ñoo di tenir un discours mais comme j'ai dit ñun xam ne ay mag lañu Ousmane Sonko li muy ko dégg yàgg nañ ko bon effectivement il a aussi un mérite mooy def na parcours boo xam ne kii nu mu tudd impôt et domaine mais comme j'ai dit encore une fois bon euh, def na parcours mais am na ñeneen ñoo aussi def nañu parcours ñoo xam ne xëy na bon euh, boo jëlee ko mel ni euh, Boubacar kamara Boubacar bon il a été directeur général des mm. ay milliers de francs CFA dugal ci caisse état bi. Mm. ba léegi man gisuma koo xam ne tuumaal na ko ne jël na xaalisu nguur gi. Mm. donc kooku am na référence. donc mais yàlla dafa def fi mu nekk fii Ousmane Sonko nga nangu ko nga bañ ko nangu yàlla moo teg loxoom ci moom. waaw loolu nag moom moo am c'est une réalité boo xam ne il faut ñu accepter ko. donc te li muy wax fi mu nekk fii ñu ci bëri képp ko xam ne bëgg nga réew mi xam nga kii li muy wax nii dëgg la. moo tax ñu bëri du waa Pastef rek waaye ay sénégalais yoo xam ne euh, bokkuñu benn parti mais nee nañ kii yaakaar rek kii lañ ko gunge donc population yaakaar boobu laa am si Ousmane Sonko mais ñi nga xam ne nag waa ñooy waa nguur kii waa benn bokk yaakaar waa APR ak président de la république ñoom xam nañu Ousmane Sonko. fépp foo xam ne tase nañ ñoom si élection daf leen di duma si saa si quoi. mais sa nekkul Ousmane Sonko lim leen xamal lim leen wax que ne. Mm. képp koo xam ne làng lu toll ni tarfatal ay ni ci euh, kopparu askan wi jàppal ne dinañ ko diggaale mën a wala di nga ko diggaale ak la justice est-ce que euh, nekkul ne euh, yooyu les kàddu moo waral Ousmane Sonko nag ñu xam fa mu jëm moo tax li ni mel di ko dal. waaw mais man mii non man mi fi mu toll fii xam nga lu may tey jii élection yi di ñëw. ma prêter serment le de mm-hmm. le trois damay tëj frontière yi. damay nangu passeport képp koo xam ne kilifa nga fi ministre rek député directeur général kenn du génne réew mi. Mm-hmm. waaw parce que aussi il faut que c' est sur trop facile quoi ñi ñi di dee ñaata nit ñoo dee. ah mm-hmm. à cause de ces histoires là léegi ñu bëggee rek boo amee présent bu bees rek ñu fàttali ñoo ñu laa wax. dañ leen di nangu seen passeport du ñu génne réew mi kenn ku nekk sa xaalis nga wax ñu foo ko jëlee. ah l' actuel premier ministre la. Mm. mais actuellement xam nga ne dëkk bi sax amul amul kilifa parce que moom mu ngi ci ay tournée. président moom mu ngi génne bitim réew. sénégalais nañu xam ne on les a abandonnés. Mm. moo tax ma wax leen fan yi fii ba élection yi nañu muñ day gën di métti rek day gën di tar amul loo xam dina oyof ci ñoom waaw mais comme muñ vraiment 12 ans war nga mën a muñ 3 euh, ans. donc effectivement c' est ça la vérité parce que aussi c' est un langage de vérité qu'il faut mm. képp koo xam ne sàcc nga xaalis boobu di nga ko waaw képp koo xam ne dem nga lu sul lu nu lu dul noonu. loo xam ne méngoowul ak yoon aussi il faut que yoon dal sa kaw. c' est pas une chasse aux sorcières. Mhm. c' est une chasse aux voleurs aux détourneurs. au prédateur et au délinquant. Mhm. kooku il faut que aussi mu leer maintenant ku mu tiital yaa xam xam nga am na loo xam ne garaaw na. président de la république moom ci boppam ñëpp dégg nañ ko. Mhm. ne ñun bu ñu perte pouvoir bi. ñu bëri ci ñun dañu duggu kaso. c'est la première fois vraiment. ñu dëgg am président de la république xam nga kële waxoon na ko Serigne Mbacke Ndiaye. ça on peut comprendre c'est un politicien mais qu'un président de la république wax ko mais li lan la moo leen dugal kaso dafa am waaw loolu nag il faut que ñu rendre compte population bi. du ñu maye ci kenn euh, dem denc ko fu la neex nga toog un an deux ans nga génnaat encore jëm bu mbay noonu ils vont rendre compte ku ci war a dugg kaso di nga dugg kaso. voilà ku ci war a bàyyi gis nga mban mi sax. créé bi bii bu ma amoon doole bu ma amoon santé dañ koy indiwaat. xam nga créé nañu seen ah, pôle seen pôle seen parquet financier et cetera. Mhm. yi bi laa wax duñ ko gaaw a tas pour que ñoom ñu xam daal mooy créé yi. li nga xam ne daal dinaa ko indi si so coppite mooy. dina am degré deuxième degré de juridiction c' est à dire que buñ la jugé nga mën a def appel. mais am na beneen coppite boo xam ne aussi dinaa ko ci indi. parce que créé yi par pratiquement ay euh, ñii liggéey état bi. Mhm. ñoom lay topp ko mais man dinaa andi coppite koo xam ne képp koo xam ne sénégalais nga rek moo mën la coppite parce que ñi di liggéey si état bi ñoom ñooy sax ci di ko dénk ñeneen ñi mm. waaw yow boo ñëwee contrôler doo gis dara doo gis kër gi doo gis tuuram oto yi doo gis turam tuuru keneen ngay gis mais kooku mënoo ko topp parce que privé la donc loolu il faut ñu changer ko. ok waaw ba mu nekk lu am solo aussi. ba mu nekk lu am solo. Ah. ku ñu gis ngay dépenser xaalis bu dul noonu ñu lay gis si télé ngay jël ay millions ay milliards di dañ lay interpeller laaj la xaalis yu fan nga ko jëlee voilà ok euh, voilà mu nekk lu am solo aussi